ñu fas yéene. kon nu fas yéene. jot li tuuti rek. sëriñ bi nee nu fas yéene jot li tuuti rek. ndax woowunu leen. ndax woowunu leen. ngir dimbandikoo dimbandikoo leen. ngir dimbandikoo leen. dañu a woo ngir dimbali leen. dañu leen a woo ngir dimbali leen. te kuy sukkandiku. te kuy sukkandiku. daa am foo sukk. dafa am foo sukk. te ku ñeme dañu laa déey. te ku ñeme dañu laa déey. ki nu fi dajale. ki nu fi dajale. di Cheikh Abdou Sakkour Fall. di Cheikh Abdou Sakkour Fall. di kenn ci njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridina. di kenn ci Baabul Muridina buntu yooni maam Cheikh Ibrahima Fall. di juróomeelu xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridina. di ki tëj xilaaf ak Cheikh Ibrahima Fall ci ay leeram di juróomeelu xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall. kenn ku ne xam na ne. kenn ku ne xam na ne. Serigne Touba. شيخنا احمد الخديم سيرن توبا دافا ميرم ليب رك ميرم ليب دافا داف كو رفاتل الشيخ رفال داف كو ريبا رفاتل الطالبين بو ماك بوبي شيخ ابراهيم فال نده كنا خمنا ني نده كوري خمنا ني وقت جولي جوروم له وقت جولي كات جوروم لا واي شيخ رفال داني وون واي شيخ ابراهيم فال داني arafone serigne Bamba waxna na li tax mu jóg. arafone serigne Bamba waxna li tax mu jóg. ak fa tax mu jóg. ak fa tax mu jóg. waye man Ibrahima Fall jefnako waye man Ibrahima Fall jefnako jurom yoyé nak jurom yoyé nak moy juromi khalifa yi serigne Bamba yi. moy juromi khalifa yi serigne Bamba yi Cheikh Mouhamadul Moustapha Cheikh Mouhamadul Fadel Cheikh Abdoul Ahad Ilimaani tay boo lëggee Cheikh Abdoul Khader ak serigne saliw donat serigne Moussa Fall sëñ Mor doonaat cheikh Mouhamadul Moustapha Moustapha Fall taw cheikh Ibra Serigne Mor Talla Fall. Serigne Ablaye Fall ndal Serif Assane Fall borom kaw sax Serigne Abdou Sakkoor nag sàkk mu jeex tàkk. cheikh Ibra ko waxoon. cheikh Ibra ko waxoon. moo ne woon sama sakkoor bu sàkkee mu jeex. moo ne woon sama sakkoor mii bu sàkkee mu jeex tàkk. ba mu sàkkee la ñu noppee gis doomu Cheikh Ibra ju góor ci kaw suuf. ba maam cheikh Abdou Sakkoor sàkkee la ñu noppee gis doomu cheikh Ibra Fall ñuy baal baat bi góor ci kaw suuf. te te la mu waxoon dafa leer naññ. te la mu waxoon dafa leer naññ. dana man Abdou Sakkoor day. daf ne man Abdou Sakkoor day. bu àdduna desoon ci tàkkusaan ak tisbaar. bu àdduna desoon ci tàkkusaan ak tisbaar. ñu ne àdduna dana tukki tey. ñu ne àdduna dana tukki tey. man Abdou Sakkoor dinaa dégg Cheikh Ibra Fall. nee na man Abdou Sakkoor danaa dégg Cheikh Ibra. dinaa toog ci lalam bii kenn koo def. dinaa toog ci lalam bii doonu xalifaam. te booba ki nga xam ne mooy taw Cheikh Ibra mooy sëñ Mourou Safal mi ngi fi loolu bàttin na. mi nga xam ne moom lañ ko tudde moom mi nga xam ne sëñ Abdou Sakor mooy caatum Cheikh rek mooy euh, ki mujj ci Cheikh Ibra di di di leeram di xalifaam waaye moom mii moo mujj ci njaboot sëñ Abdou Sakor tudde ko Cheikh Moudou Moustapha may may juróomeelam rek ma nit nee na waaw moom moom rek muy juróomeelam muy juróomeelam tamit mu ne mu ne woon mu ne woon Moustapha mii ci laay mujjee am takk teer allahu akbar sëñ Abdou Sakor mii ci laay mujjee am takk teer am nay Moustapha nag am nay Moustapha nag ba tàyyi waaye. waaye. mu ne leen. mu ne leen. xanaa su ma caatloo Moustapha seen xel dana dal. xanaa su ma caatloo Mouhamadul Moustapha seen xel dana dal. boobee la xel yëpp dal. boobee la xel yëpp dal alhamdulilah rabbil alamin. kon sëriñ bi. kon sëriñ bi. mbiram des ko mënut a misaal. mbiram kenn mënu koo misaal. jëf rek lañ ko mën a defee. jëf rek lañu ko mën a defee. sëriñ Sakkoor nag. sëriñ Abdou Sakkoor nag. daana wax ne man Abdou Sakkoor day. daana wax ne man Abdou Sakkoor am lu ma fayee. ñi ma damaa am lu ma fayee. moo waral. moo waral. danaan wax naan. sëriñ Abdou Sakkoor daana wax naan. man Abdou Sakkoor day. Sering boy jox addiya mu di la ca neexal sëriñ booy jox addiya mu la mu la mu di la ca neexal boo ko nangu ko fay ma ne boo ko boo ba nangu sa addiya ndax fay sim sàkko di ko daan sim dunde itam la daan day Duma wax ne man Abdou sering day du Duma sering gone duma ma gone ne man Abdou Sakor day. man Abdou Sakor day. alal addiya ji ngeen di yëkkati di ma ko jox. Cheikh Ibra dina fay de. Cheikh Ibra dina fay de. Serigne Touba fay. Serigne Touba fay. waaye seen fay googee. waaye man Abdou Sakor damaa am sama fayu bopp. man Abdou wax loolu yi. moo ko jëfit. moo ko jëfit. kon loolu. kon loolu. bu ñu leen dajalee fii. bu ñu leen dajalee fii. woo leen ngeen ñëw wuy sinu. woo leen ngeen ñëw wuy si ngeen bàyyi seen bis yëpp. ngeen bàyyi seen bis yëpp. war a liggéeyi. war a liggéeyi. jóge fu nekk ci àdduna bi. fenn fu nekk ci àdduna bi. biir Italie moom kenn desut. biir Italie moom kenn desut. dëkk bu nit jóge ñëw. dëkk bu nekk ci biir réew mi nit jóge na fa ñëw ci bis bi. waa France ñëw na. ñëw nañu. ñëw na. Espagne ñëw nañu Belgique ñëw nañu Hollande ñëw na ak yeneen réew yi nga xam ne teewlu wuñ leen kon gërëm nañ ñëpp kon gërëm naa ñëpp ngi leen di xamal te kat maa ngi leen di xamal ne bis bi dafa ne day bisu faj bis bii dafay bisu faj aajo ku sa aajo nar ta faju doo fi ñëw ku sa aajo doo ñëw ci bis bi ku sa aajo narata faju doo jël sa addi yónnee ko ci bis bi ku sa aajo narata faju doo lamb ci sa wër sa génne sa addi yi dugal ko ci bis bi moo tax moo tax ma ne leen ma ne leen woowu ma leen ngir ngir ngir ngeen dimbali ma woowu ma leen ngir ngeen dimbali ma wala ma leen di jariñoo dama leen woo ngir dimbali leen dama leen woo ngir dimbali leen jariñ leen ndax ndax li ngeen def maa leen ko dàq ndax lii ngeen def maa leen ko dàq muy joxe muy joxe te am nañ ci firnde de noonu. amu ci kenn ci ñoo ci yéen. amu ci kenn koo xam ne ci yéen. Euh, fàttaliku na. fàttaliku na. man mosuma am dépasse une semaine. man mosuma am dépasse une semaine bu daje. tey loolu dépasse bu bare euh, ñetti fan lay doon juróom. dépasse bu bare ba bare ba daje ñetti fan doon baa juróom. te kenn ëppale wu ma ko tamit. te nag kenn ëppale wu ko nag. pour wax leen ne pour wax leen ne ki ñuy liggéeyal muy maam Cheikh Ibrahima Fall. ki ñuy liggéeyal muy Baabul Muridiina maam Cheikh Ibrahima Fall. képp koo xam da ngay koppati. képp koo xam ne da ngay koppati. li sëñ Sakko daan koppati. li sëñ Sakko daan wax koppati. indi leen la ci des nga ne ca nee na andi daan la ci des nga ne ko kiit denc. am na kenn ci magi taalibe bi. am na kenn ci magi taalibe sëriñ Abdou Sakkoor yi. wax na ma ne. wax na ma ne. sëñ bi da koo nen woon rek. sëñ bi da koo nenn woon rek. waxtu mu ne demal neel diw na ma jox rek mu yónnee ci moom ni neel diw na ma jox ba mujj kooku ne sëñ bi kat xanaa daa bëgg nag ba mujj taalibe la waaye sëñ bi moom xanaa daa bëgg moom dootuma am lu ma jaay dootuma sax lu ma jaay sëñ bi sàkkoor kenn daaw ko jëw sëñ ko la wax ne daanuñu ko jëw rek xamu sëñ bi sàkkoor képp ku la wax ne daanuñu jëw Cheikh Abdou Sàkkoor rek umpale na ko xamu ko su la neexee nag nga toog jataayam wax nee na waaye dem fenni ngunum ngunum kenn mësu ko koo ñemee def. kenn mësu ko koo ñemee def. daaw ko ñaajit. kenn daaw ko ñaajit. jëmu joojee. jëmu joojee. mu toog ab diir xaw a taxaw. mu toog ab diir mooy jëm ji sëñ bi nee na woon mu toog ab diir liggéeyam xaw a taxaw. mu ñëwaat ci sëñ bi. mu ñëwaat ci sëñ bi. ñu ko liggéey bi kat daa taxaw. ñu ko faal yaaram liggéey bi daa xaw a taxaw. mu ne ko yaa ne kiit. mu ne kiit. ma ne kiit ma ne kiit. allahu joxe demul daa jëli de. noonu rek la. mu daal di dem wax la ci bitig ba indi. mu daal di dem vidéo la ci bitig ba yëpp ñëw jox ko sëñ bi Sakkoor. mbir ma commencé jox mbir ma commencé di doxaat. Ah, noonu dong la noonu rek la. noonu yoon wi. yoon wi. yoon wi. yoon wi. day yoonu jaayante. yoonu jaayante. jaayante nag ku ko def. jaayante nag képp ku ko def. la nga jaay ñàkk nga ko. la nga jaay ñàkk nga ko. sëg njëg nga moom. sëg njëg nga moom. la nga jënd nga moom. la nga jënd nga moom. kon murid yi. kon murid yi. Euh, bu ñu nax suñu bopp. bu ñu nax suñu bopp. li nu fi tax a ñëw. li nu fi tax a ñëw. mooy lijjantiku. mooy lijjantiku. nanu ko jaayante. nanu ko jaayante. man nag damaa am man nag damaa am ab sëriñ. nu bokkub sëriñ nun ñëpp nag. nu bokkub sëriñ nun ñëpp nag. ndax benn sëriñ la muy seex Ibrahima. ndax benn sëriñ la muy Cheikh Ibrahima waaye bunt bi mooy. waaye bunt bi mooy. Serigne Fallou Fall mi nga xam ne moo toog ren moo toog di jëmmi Serigne Abdou Sakkoor Fall. moom laa bëgg. moom laa bëgg. waxuma ngeen joxal ma ko addiye. waxuma ngeen joxal ma ko addiye de. maa bëgg ñu joxle ma ko addiye. waaye dama bëgg ñu joxle ma ko addiye. damay joxe. damay joxe. nu ànd joxe. nu ànd joxe. su ko defee. su ko defee. ku ci nekk am nga yitte joo mun sa bopp dara. kenn ku nekk ci noonu am na yitte yoo xam ne munu ca boppam munu lu ca boppam dara. mu tëlati ci. mu tële ticc. nu jaayante ko fas ko. nu jaayante fas ci yéenu joojee. giñ naa ko sëñ bi Sakkoor. giñ sëñ bi Sakkoor. loolu dana saafara. loolu dana saafara. barkeb Seex Ibra. barkeb Seex Ibra. kon nañ ko daal def. kon nañ ko daal def léegi. léegi nag. sëñ Abdou Sakkoor. sëriñ Abdou Sakkoor. sëriñ Fallou dafa def ci moom lu bëree bëri. sëriñ mu Fallou dafa def ci moom lu bëree bëri. am na ci mag ñi. am na ci mag ñi. bi yàlla dogalee mu ne ci tàngaayam woowu ñuy wax. bi yàlla dogalee mu ne ci tàngaayam woowu ñuy wax. tolloon na diggante boo xam ne. tolloon na diggante boo xam ne. dëkkut ak doom. dëkkul ak doom. du soxna. du soxna. du taalibe du taalibe. Abdou Sakkour Xuso nee na ma. Abdou Sakkour. nee na ko. ca Mbuur ca sëñ Cheikh Moustapha mii. dafa am dafa jóge Côte d'Ivoire. dafa jóge Côte d'Ivoire. ñëw Mbacke Bawol. ñëw Mbacke Bawol. jamono boobu foofee la vitre yi di taxaw. boobee foofee ci booru cinéma la moom dafa la vitre yi di taxaw. mu laajte dafa bëgg a dem Daaru Fall. mu laajte ni dafa bëgg dem Daaru Fall. Daaru Fall mi ngi ci diggante Touba Fall ak Touba Mbacke. mooy dëkku Cheikh Abdou Sakour. nee na mu jël fa watiir. nee na mu jël fa watiir. ba mu ñëwee. ba mu ñëwee. ba jub kër gi. ba jub booba am na xay gu mag gu ne ci buntu kër gi. booba na xay gu mag gu ne ci buntu kër gi. mu seen am na ku taxaw foofu. nee na mu seen ku taxaw foofu ci xay gi. mu ñëw ba jege ko. nee na ba mu ñëwee ba jege ko. mu nuyu ko. ne ko man bi laa soxla ni ko man kat damaa amoon yitte ci ku baax ki. mu ne ah. yow ndax nit nga. yow ndax nit nga. jëmm jooju nga xam ne. jëmm jooju nga xam ne. ñëpp dañ koy daw. ñëpp dañu koy daw. yow nga ne moom ngay moom ngay seet. yow nga ne moom ngay seet. yow yaay kan. yow yaay kan. mu ne ko man de moom ñoo tuddee Abdou Sakour laa tudd mu ne ko man de ma tuddee mooy sama turandoo maa ngi tudd Abdou Sakour jógee Côte d'Ivoire. boobu Côte d'Ivoire daa xew comme fii rek. boobu nag Côte d'Ivoire mooy ñooy Maodo yi dafa xew lool. nee na mu ne ko mën mën naa la wan fa ne ko ah, man de mën naa la wan sëñ mu ne dama la koy joxe waaye du ma yëg dama la ji ne ko waaw ñu ànd dox nee ànd dox wër kër gi wër kër gi tokkoor baa ngi ci ginnaaw tokkoor baa ngi ci ginnaaw mu joxoñ ko mu joxoñ ko ci sow bi ci wetu Touba sow bi ci wetu Touba ne ko xur ngay séen ni ko xur wale ngay séen de boo yokkee sa boo say jéego soo yekkoo soo yokkee say jéego tuuti. da nga seen jëmm ju fa taxaw. da nga seen ju fa taxaw. sol lu ñuul sol lu ñuul. jublu penku. waxuta kenn. waxuta kenn. jëmm jëmm joojee. jëmm joojee. moom la. Abdou Sakor nee na ma daa dëgërlu rek. Abdou Sakor nee na turandoo wi dëkk Côte d'Ivoire na ma daa di ma daa di ma di dëgërlu rek. dem ba jege ko daal nuyoo ni asalaamu aleykum mu ne tekk rek nee na ma dox ba sama digganteeg moom toll ci ñetti mètre ma nuyoo waat wax asalaamu aleykum mu ne tekk rek nee na ma daal di yeesalaat nuyoo daal ne asalaamu aleykum allah ma ñëw ba jege sëñ bi. nee na Abdou Sakkoor ñëw ba jege sëñ Abdou Sakkoor. nee na ma dellu nag ba ba nga xam si nag daanaka li dox sama diggante ba matatul mètre. nee na ma dem ba jege ko lool ba sama diggante ak moom matatul mètre. ma nee na eh, xam foofu li ma daaneel. <laughs> nee na foofu li tax mu soppi ko. maanaam sëñ bi dafa yéeme. nee na sëñ Abdou Sakkoor dafa yéeme. sama xol moo fees. nee na xolam moo fees. waaw ah, ndax eh, waajur dafa foor. ndax nee na waajur dafa foor. fukki at. fukki at yàlla. am na ko yoo xam ne dëkkut ak nit sëñ Abdou Sakor am na ko yoo xam ne dëkkul ak ku yàlla bind ñi ngeen gis ay caatam lañ sëñ Fallou ba ci man mii xam ne gis nañ ko muy sëñ Fallou ñu ñëpp ay caatam lañu sët yi mu njëkk gi sax ñoo mag yi xalifa am nee na sët yi sëñ Abdou yi nga xam ne moom la njëkk am ji sët sax ñoo mag sëñ Fallou mi di xalifa

Euh, sëñ Abdou Sakkour Xoussa moomu nee na sëñ Abdou Sakkour Xoussa moomu nga xam ne moo leen ba jege sëñ bi nag nee na bi ma waxaatee asalaamaaleykum nee na bi ma delloo yeesalaat sama moom nuyoo wax asalaamaaleykum wa rahmatullah bi ma wëlbati ko bi ma mbéjee nee na sëñ Abdou dafa wëlbati bi mu aaree sama kaaba gi mbéj ma nee na euh, ci suuf rek nee dama ni ci suuf mu fekk ma fa këdd nee na mu fekk ma fa daal may këdd ba doyal ba doyal daa ne ma kii kan la daa ne ma kii kan la ma ne ko ma ne ko ah de Abissakour Samos. donc Abissakour Samos. gën a sopp. gën a sopp. looy dox looy dox. ku la fi woo. ku la fi woo. nga Fall xanaa ñëpp ne eh, da ngaa wéradi rek. mu ne xanaa Fall ñëpp ne da ngaa wéradi rek. te ma xam ne dara jotu la. te ma xam ne dara jotu la. ndax ab yan dong la jàpp. ndax ab yan dong la jàpp. mu ne ma gën a sopp. mu ne ko Abissakour eh, waa kaay kaay yow. waaw kaay kaay kaay. <laughs> nee na ànd ak man nag dox. nee na ànd man di dox. <laughs> ba sori. ba sori lool. daal di àgg suuf nag. daal di àgg suuf nag. loolu ñi la ko mën a wax nee na loolu ñi la ko a wax bariwuñu sëñ bi daana toog lu mat fukki fan yoo xam ne ñam du dugg ci gémmiñam Cheikh Abdou Sakko daana toog lu mat fukki fan yoo xam ne ni ñam du dugg ci gémmiñam loolu kenn mësu koo gis loolu kenn mësu koo gis nee loolu kenn mësu koo gis nee na muy waxtaan ak du nee na muy waxtaan Abdou Abdou Sakko Xoussa ana waa Côte di ko laaj ana waa di d'Ivoire réew moom nu ngeen fa nekkee di ko laaj nu ñu nekkee ci réew ma nee na ba ba ba waxtaan yëpp jeex rek nee na nag ba waxtaan yëpp jeex nag mu ne ma waaw góor mu ne ma waaw góor ah jàmbaar nii lay def jàmbaar nii lay def ah mu ne ko ah man damaa xam ne dara jot la mu ne ko ah man ne Fall damaa xam ne dara jotul ab yan rek la jàpp ab yan diis yan bee diis rek mu ne ko waa koy baax na ne ko waa koy baax kon dikkal ma ñaanal nga delluwaat nag kon dikkal ma ñaanal la nga delluwaat mu daal delluwaat Côte d'Ivoire mu daal delluwaat Côte d'Ivoire Abdou Sakkour moom nee na ma Abdou Sakkour Cheikh Moustapha yoon ne yoon woo xam ne Fall Fall nee na sëñ moo taal Fall xalima sëñ Thierno Diouf la am maam mi jëmm ji xaritam la lool. Euh, tuddewoon na ko doom ju mag tuddewoon na ko doom ju mag. dafa wàcc. Euh, te sëñ moo taala. te sëñ moo taala. wax nañ ne doon na yëkkati euh, xasida mawaahib. wax nañ ne daana yëkkati xasida mawaahib bu naafi. ci buntu ci buntu sëriñ bi njaareem. ci buntu kër ku tedd ki ci njaareem. ba mu yàgg. sëñ Tuba ne ko kan la sëñ Tuba ne ana daa da ko ndax da daan wax naan Cheikh Ibrahima moo jur Moustapha ca ca asal moo jur Moustapha ma jur Mor Talla mii ma jur Mor Talla mii moom Moustapha jafe na moom Moustapha jafe na euh, sëñ Moussa Ka ko bind. sëriñ Moussa moo ko bind. daal di ne. daal di ne. sëriñ Touba daanaka bu daan dugg xalwa daan fataale wax ne sëriñ bu daan dugg xalwatu daana fataale sëriñ Mortala Fall. ak sëñ Modou Mamoun Mbacke bu Daaru Salaam. ak sëñ Modou Mamoun Mbacke bu Daaru Salaam bu sa maam Cheikh Gawane. Euh, sëñ Abdou Sakkour Xoussa daal di may wax ne ma. sëñ Abdou Sakkour Xoussa daal di ko wax ne ko. dañoo jógee Njaareem. bi ma jógee Njaareem. jaar kër ma jéey. jaar kër ma jéey. njakkar ma jéey njakkar ma jéey ba génn gébbu faal ba génn gébbu faal bay waaje egg si tubaa faal bay faa waaje egg si tubaa faal dajanteeg weeru koor dajante nag ak weeru koor nee na sëñ Mor Talla nee na sëñ Mor Talla war a dog war a dog timis jot mu war a dog mu daal di ne mu daal di ne Abdou Sakkoor Abdou Sakkoor ndax man nga maa may ma këf kin ndax man nga maa may ma këf kin sëñ Abdou Sakkoor na ci yàlla sëñ Abdou Sakkoor na ci yàlla bañ ko wuyu bañ ko wuyu mu waxaat ko ba mu ñetti yoon mu ne ko Abdou Sakor ndax ma nga ma may mu këf cin ba mu mat ñetti yoon mu ne ko sama yoon nekkul ci loolu mu ne ko sama yoon newu ci loolu ndax yaay sama kilifa man yaay sama kilifa ñu daal di gaare commune car bi ñu daal di gaare nag commune car bi sëñ Mortalla dem ba nee sëñ Mortalla ni dem na ba nee daal di julli daal di julli daal di laaj nee na benn kopp la yoroon kopp boo xam ne si daal di laaj boobu mi ngi yore benn kopp boo xam ne si ak lekkam bariwul ak lekkam bariwul la ca nekk matul digg. la nekk matul digg kopp ba. mu daal cee xewlu. ak teewlu ak teewlu. mu daal cee xewlu. mu ba noppi. ba mu xewloo ba noppi. daal di wootewaat ne Abdou Sakor. daal di wootewaat daal ne Abdou Sakor. Abdou Sakor Xoussa nee ma lay woo de. Abdou Sakor Xoussa nee na man sëñ Abdou Sakor Fall yow mii la sëñ moo taala di woo. nee na mën a ceel. nee na mën a ceel. nee na mu wootewaat. nee na sëñ moo taala daal di wootewaat. neen ma ne ko yow lay woo de ma ne sëñ Abdou Sakor Xoussa daan sëñ Mortal daan sëñ Abdou Sakor Fall yow mii la sëñ Mortal may di woo nee mu ne ma bu ko ñoree dana ko wax ca kaw nee na ma ne ko bu ko ñoree dana ma woo ca kaw nee na mu ne Fall nee na ma ne naa ko Abdou Sakor Xoussa Abdou Sakor Xoussa ni ko ah Fall waxoon naa la yow lay woo de nee na mu bitti ko loxo nee na ma di koy bitti loxo ne ma lu sa yoon ni ko waa lu sa yoon nee na mu daal di dem wuy ji nee na ma daal di dem wuy ji a tàngoon ak a tàngoon logis ma di ko ree rek tàngoon na ko de nee na ma am ko jàmm di ko ree sëñ Ibou Sakkour tàngoon na ko kon tàngoon na li re ree dara wax naa man ab Sakkour nee da daan wax sëñ Moussa boo gisee bëñ bi ngay njëkk gi mu sëñ bi da nga mer a ah yombul yombul ah nee na yombul de mer man dafa yàlla mosuma ko gis faal yàlla moo ko gis dina am loo métti nag métti nee dina am loo métti nag waaye nag mer mi yombul ndeysaan nee na sëñ Ibou Sakkour nee lu mu bari di ko ree rek sëñ Sakkour ko xam lu mu wax xam nga wax man ab sàkkoor day man ab sàkkoor day ku ma àndal suba ba ba yaa man yaa ca ba yaa ca bañ ba diggal lool rek nee na déggal lool rek àndal suba ba ngoon yaa ca ba nee na àndal suba ba ngoon yaa ba kon neexut a àndal kon nag kooku neexut a àndal de man na ñaar lépp ñi ma àndal maa ba nee na ñaaral nag man mii ñi ma àndal ñi cëpp ba <laughs> aw ah, xalfin wala man zakka an al Moustapha waysal xadim wilaayatan doom moo di bàyyi xarfin bi xarfin ab néeg moom ko ca mujj moo yor bagage naa ko fii nga toog sëñ Cheikh Aw Ballam sëñ Fall mu ne ma géwal ko Mbàkke mu ne ma bu sobee dama ko aram dañ ne am néeg bi ku ca ku fa mujj la fa secret yëpp ko yore am caat mu ma bu sobee <laughs> kon nag yaay moom <laughs> léegi te Ibou Sakkour wuyu si moo taala. sëñ Abdou daal de wuyu si moo taala. dañuy dolli ko de Mouride Sall. ñu waxtaanee la ñu waxtaanee. waxtaan bi yëpp dolli ko la. nit taalube rek soññee ci. nanu jàng ci suñu sañ yi ak taalube. barki démb dama baal ma sëñ barki démb dama xool ci 4 mars gi sëriñ Moustapha Mouhamed moom Serigne Mbacke soxna Lo sama sang. mbooloo mi wër ko ñetti téeméeri seex ak juróom fukk. 4 mars gi yaatu lool mbooloo mi bari lool daayira yi bari lool. booy jërëm wu tedd ba Serigne Cheikh moom sëñ Aliou ni bërit fekk ko fi mu toog mu nuyu ko jox ko ñaari bët ñaari loxo su jóot toog fi su doxañ ko toogo bi mu toogoon te booloo mépp moom lañ yaakaar dama ne ku bëggub cër da nga koy joxe bismillah Fall sëriñ bi dégloo nee na sëñ Sakko daal ne sëñ daal ne ko sëñ Mootaal daal ne sëñ gi ma la woo xam lu ma jubloo woo gi ma la woo ndax xam nga lu ma si damaa bëgg. damaa bëgg. julli gii may def. julli gii may def. ak koor gii may def. ak koor may def di Baay ya yaakaaruma ci dara. ah ya ci dara de. sëñ Tuubaa ma yar nag. sëñ Tuubaa nag moo ma yar. sëñ Tuubaa ku mu yar da ngay am mandarga. sëñ Tuubaa képp ku mu yar da ngay am mandarga dégg leen wax bu baax. loolu tax di def de. loolu moo tax may kër kër yi di jullee ko ya waaye nag. waaye nag. lépp lu ma am. lépp lu am. ak lu fa yaakaar. ak lu fa yaakaar. sa baay ba laa ko yaakaar Cheikh Ibrahima. ci sa baay ba Cheikh Ibrahima Fall baabul bi laa ko waaye dégg nañ bi wax. nee na nee na sëñ Sakor nee na ma sama yoon ci loolu nee sëñ Sakor ne ko sa koor yooyu sama yoon mu ne ko damaa bëgg bu ñu demee ci mu ne ko damaa bëgg suñu demee ci Cheikh Ibrahima Fall nga seede ma ndax mu xam ne nattab liwu ma lennam ndax mu xam ne maa ngi julli maa ngi war waaye nattab liwu ma lennam de ndax moo fi ne ndax moo fi ne waaw ndax sëñ Sakor ndax sëñ Sakor daraan wax naan daf daan wax naan niroo niroo ba dara desut niro niro bu dara disul dañ ko daan wax naan da ngaa niroog sa baye Cheikh ibrahim dañ ko daan wax ne ko ah sëñ Sakko yow da ngaa niroog sa wuju tëru Cheikh ibrahim Fall mu ne niroo bu dara disul mu ne niroo bu dara disul du nu gennewal saw lamagn ma xol du nu gennewal saw lamagn ma xol ba xam yow ya lam du yow ba xam yow ya lam du yow ya, moom la ah nee kon mooma de dara wax naan Cheikh Sakko daana wax naan su ngeen gisee may jotaay ci samay kilifa su ngeen gisee ma lu may bokk ay jotaay ak samay kilifa ah, dem seeti sa kilifa. ah dem seeti sa kilifa. mu toog ca kaw nga toog ci suuf. mu toog ca kaw nga toog ci suuf. te bu seeni bët ñeentee am xelam du dal. te bu seeni bët ñeentee am xelam du dal. Ah, nga ba ko këram. nga bàyyi ko këram na. lu waral loolu. lu waral loolu. ku ma ci xool. ku ci xool. sa dem ci Cheikh Ibra. sa xel dem ci Cheikh Ibra. ma toog ci sukk. ma toog ci suuf sukk. nga toog ci kaw di ma xool. nga toog ci kaw di ma xool. attanoo ko. loolu attanoo ko. <laughs> ma naa dellu sama kër toog rek ma naa dellu sama kër toog rek moo tax du ma toog ak sama kilifa euh, foofu la nekkoon foofu la newoon tey allahu akbar dañu ñi bari na fal yaaram ah. moo tax nu war a góorgóorlu moo tax nag nu war a góorgóorlu roy ci maam Cheikh Ibrahima Fall roy nag ci royukaay bu mag bi nag maam Cheikh Ibrahima Fall ba murid murid yépp yëpp yëpp murid yëpp yëpp yëpp seen bunt mooy seen bunt mooy seen njariñ mooy seen njariñ ay déglu leen ma ah, murit Cheikh Moussa Fall mu seen sakku ne na ngeen déglu ko de. ndax ngeen jëriñu ci Cheikh Ibra. ndax ngeen jëriñu ci ndax man de. ndax man de. adduna bi toll na foo xam ne jamono ji. adduna bi toll na foo xam ne jamono ji. toll na foo xam ne. toll na foo xam ne. ñu bari yaakaar nañu ne. ñu bari yaakaar nañu ne. ay murit lañ. ay murit lañ. ay murit lañu. te ña nga ca ginnaaw. te ña nga ci yàlla musal. xam lu leen ko yóbbee. xam nga lu tax ñu ne sa ginnaaw. ñàkk xam kan mooy maam Cheikh Ibrahima Fall. ñàkk xam kan mooy maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine Matar ma tuuti yow danaa bëgg dara ci maam Cheikh. bu ma sori Serigne Bassirou dafa wax ne. Cheikh Mamadou Bassirou dafa wax ne. Cheikh Ibrahima Fall mooy échantillon. Cheikh Ibrahima Fall mooy échantillon ku ñu topp. ku ñuy topp. mu ne Serigne bu mën a doon rek. mu ne Serigne bu ñu mën di doon ku ñuy topp. jëlal Cheikh Ibrahima Fall nga def ko muy sa royukaay. jëlal Cheikh Ibrahima Fall nga def ko muy sa royukaay. nga daal di jëriñ ca Serigne boobee. nga daal di jëriñ ca amu ci benn murit boo xam ne. amu benn murit boo xam ne. ba ngay jébbalu. ba ngay jébbalu. dañ laa wax ne la. dañ laa wax ne la. royal sëriñ diw. royal sëriñ diw. wala doomi sëriñ bi. wala doomi sëriñ bi. royal maam Cheikh Ibrahima Fall lañ la wax. dañ laa wax ne royal maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina. te boo meree noonee. te boo meree noonee. yaay gënal sab sëriñ. te murit lu muy sàkku leneen. te murit nag dal moo yitteem bi lu gënal ab sëriñam. kon murit bul nax sa bopp. kon murit yow murit bi. dellusil yow murit bi. nga taataan. nga taataan. Cheikh na. murit day jébbalu. murit dafay joxe addiya. murit dafay liggéeyal sëriñam. murit dafay doyloo ab sëriñam. xoolal li maam Cheikh Ibrahima Fall wax. sëriñ bi may seet dafa yegg te ku ko topp yegg bi mu gisee sëriñ boobeet daf ne ko àdduna bii soxla ma fi dara soxla ma fi sax mbaar mu may kere wala ay doom Cheikh Ibrahima li mu defal kenn defarul xoolal fa mu fekk Cheikh Moustapha al Karim xalifatul awal moom Cheikhul Khadim Serigne Assane Awa Diakhale daf maa wax ne ma keroog bi ñuy wane jumaa yi tuubaa ji nee na booba maa ngi ànd ak sa wajur Serigne Abdou Sakkour nee na booba ñi ngi dañal fasu góor yu rafet nii nag xam nga lu Serigne Abdou Sakkour daan waxa bu kilifa yëpp teewoo déglu ngir yàlla kenn ku nekk wax li ngay rëpputale ni ngay dawle soo fas. ba ñëpp eggal. ba ñëpp eggal. ñu ne Abdou Sakor yow doo wax ni ngay dawale. ndax yow gis nañ la. ndax yow gis nañ la. fas wi ngay dawal. ñu koy wax xalifa. fas wu yegg ca kaw la. Abdou Karim Ndiaye ne suñu sakku bi daan war fas wi. moom Karim. bu ko sëñ bi yónnee ni ko demal andil ma xalifa. da koy wamat bu demee ba ca garab mu yéeg ca garab ga soog a mën a yéeg ca fasu ndax fasu ni mu amee taxawaay nee na mi ngi ñuy denc daaru faal gii nee na fasoo yi di xalifa sëñ bi da ko daan rëbbatal dawal ko ba ca biirub nekk fas wi sukk sëriñ bi wàcc ci lal bi fas wi raamaat dànk jël ci mu ne man ni may waree aw fas sama fas man Abdou Sakor su ma koy dawal li tax fas wi du yam ak wenn fas te kenn du ko mën a romb ruugi laay rocci teeku man Abdou Sakor ba keroog may wàcc ko fas allahu akbar kooku kon kenn xamul kan mooy Serigne Abdou Sakor Samb nee na sunu borom mi ko bind ak Cheikh Ibrahima baayam rek ñoo ko xam Serigne Moustapha Gueye Yarwaay Serigne Touba yebal na ko ni ko Moustapha Gueye doxantul ba nee koo njëkk a daje ci fere yi nga woon ma mu génn rek yam ci sëñ bi sàkkoo mu ne ko kaay wuyu ku baax nee na sëñ bi Sakor daal di ñëw wuy si ku tedd gi mu ne ko yéen ñaar ñii seen way jur ya ba ci seen doom yi def naa ci yéen ba yéen doom yu ngeen jur muy yow sëñ Sakor ak sëñ Moustapha Guèye Yerwaay mii doom yu ngeen jur bu ngeen jaaree fa neex yàlla fa ma leen jaarloo de dégg nga de. seeni loxo du booy. seeni loxo du booy. seen loxoy du booy. seen loxoy doom du booy mel ne loxoy Cheikh Mbacke moom. wax sëñ Tuubaa laay wax de. lépp lu ngeen bëgg. lépp lu ngeen bëgg. dana ñëwal boppam ci seen loxo. dana ñëw seen loxoy doom Allah. loolu Serigne Touba ko wax sëñ Moussa Gueye ginnaaw ba mu ko walee kum njëkk a ci fere yi mu génn yem si sa ko woo ko sëñ bi wax leen wax leen lii. Serigne Assane Awa Diakhaté nee na ma Cheikh Moustapha Al Karim dafa xëy daal di ñëw ci maam Cheikh Ibrahima Fall maam Cheikh Fall ah doom ehe eh, yaaram mbay mu ne ko Fall yaaram maa ngi nii mu ne ko jox ma naanu gi nee mu daal di xëcc ñetti yoon daana ah Modou Moussa lu doon say tànk lu wànq di jox noor mu ne dugub ji rek far yàlla am kat ndénkaani lu nu lu battale ak yow Cheikh Moussa Al Karim may wax Cheikh Ahmadul Xadim daf ne woon su ëllëgee sama yoon wi lépp lu ngeen ci bëgg mu ne def leen ci Cheikh Baye seen Ibra dégg leen Ibra Fall rek ak Serigne li Serigne Touba dénk seex Moustapha al Karim ne ko dem leen ci ba seen bàyyi Cheikh Ibra Fall bu ëllëgee lu ngeen bëgg mu leer ci yoon wi bu ngeen demee ci Cheikh Ibra mu leeral leen nee na keroog bu Cheikh Moustapha al Karim ñëwee xam ngeen lu mu def Cheikh Moustapha dafa moom taalibe ba nga xam ne bopp bi da koo mujjoon a bàyyi ba mu mel ne bopp Sëñ Saaliw bu ñu tudd ko sa far njañ nee na turu njañ woowee Cheikh Moustapha Al Karim amoon mi ngi ko jëlee ci ba Cheikh bi ndax karam googu mu bàyyi woon mu njañu ba mel ne karam Serigne Saliou nee na Cheikh Moustapha Al Karim dafa sukk raam jox ñaari loxo Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall bàyyi ko rek di ko seetaan mu def ba yeggal maam Cheikh daal di sëñ yaaram mbay daal di jóg taxaw daal di ne ñokket jóg taxaw daal di koy yëkkati daal di yëkkati Cheikh Moustapha Al Karim ndax dégg ngeen bi mu ko ganesee Thiès cees mu ko def dégg ngeen bi mu ko ganesee Thiès bi nga xam ne sëñ Mourou saa ñëw na gane Cheikh Ibrahima Thiès na mu ko def daf ne bu leen takk ab saret daf ne bu leen takk ab saret bu leen takk aw fas bu leen ko dugal oto su ngeen demee su ngeen demee da ngeen jàppoo da ngeen di jàppoo ak ticket lu mel ne ticket ñu wut lu mel ne ak ticket ndax doomi sëñ bàmba ji kat ndax bëgguma suuf laal ko bëgguma suuf laal ko ak li la foofu ndax bu dee fasa mën naa bajantu bu dee oto mën a fekkee oto ci la nekk mën naa doxe nu mu war a doxee yéen nag maa leen yar yéen nag leen def li war ci yéen seeni bopp ci boppi murid yi lañ teg Cheikh Cheikh Mourou Moustapha ba andi ko ci dama leen di leeral taalibeeg maam Cheikh Ibrahima Fall. taalibeeg maam Cheikh Ibrahima Fall. ndax gis ngeen. ndax kenn ku nekk xam na ne gis ngeen. Euh, am na benn bis. am na benn bis. Serigne Bassirou ak Serigne Fall. Cheikh Mouhamadul ak Serigne Fadilou. ñu topp ñu nekk ci ginnaaw maam Cheikh ñu nekk ci ginnaaw ñu nekk ci ginnaaw ku tëdd ki Cheikhul Khadim. Serigne bi julli ba noppi. Serigne ñu nekk ci der bi ku bi Serigne bi doon julli kenn ku nekk di raay ak di ziare. bu bu bu gëstoo nga gaaw bàyyi. bu gëstoo rek nga daal di gaaw bàyyi. yàgg sëñ bi muñ. ba ci yàgg ku tedd ki daal di muun dina xanaa li sëñ Ba Cheikh Ibra nga ko gis a wàcc ñu ne ko waaw Fall waaw Fall li day sëñ waaw li day sëñ maam Cheikh la gis tey muy Cheikh Mouhamadoul Bachir ak Cheikh Mouhamadou Fall tey di doomi sëñ Tuubaa fees dal nag euh, defee noonu Cheikh Ibra nee na bi Cheikh Mouhamadou Moustapha Cheikh Mouhamadou Samba Mbàkke ñëwee fekk Cheikh Ibra toog mu nuyu ko faaf ci kanam Cheikh Ibra dem dem lépp Cheikh Ibra dafa dugg ci kër gi rëgët la fa nekkoon lépp lépp mu dajale ko jël ak buum takk ci baatam jël ak buum leen dafa leen ba ñëpp farlu keroog daama ko fal hmm. xut bu muy xalifaam mu jiital ko ci baatin mu doonul islaam am Cheikh daal dugg ci kër gi rëgët la fa newoon lépp jël ak buum takk ci baatam ni ana yaram mbay ni ko tabaski gi ñëk féké a kër Serigne Touba dama ne ko mbacké suma la maté am tabaski man Ibra Fall maa ngi lépp loo bëgg ci man maa kon Cheikh Moustapha ni nga def day ni nga def day da ngay wone yoon wi rek da wone yoon rek waye dama lay wan ni ma daan def ak sa baay bu baax waye dama lay wan ni ma daan def ak sa baay bu baax ba Serigne Touba nga xam ne wuutalewu ma la ak Serigne Touba daal di raam moom Cheikh Ibra daal di yëkkati sëñ Moussa Mbacke dal di koy teg ca kaw daal di koy teg ca kaw daal ne ah doom daal ne ah doom wutewu ma la ak sa baay bu baax wutewu ma la ak bu baax ba daal ne ko lu doon say tànk daal ne ko lu doon say tànk mu ne ko sëriñ bi daf maa waxoon ne ma mu ne ko daf maa waxoon ne bu ngeen demee ba toll ci taxawal sama jumaa ji. bu ngeen demee ba toll ci sama taxawal sama jumaa ji. na dem ci seen baay Ibra Fall. na ngeen dem ci seen baay Ibra Fall. mu wax leen naka pexe. mu wax leen naka pexe. tey. sëñ Assane Awa Diakhaté nee na. sëñ Assane Awa Diakhaté nee na. keroog. keroog. nee na sëñ Assane doomu maam Saliou Fall la. maam Saliou ak maam Cheikh Ibra no bokk soxna Seyni bu Njaay ak maam Ahmadou Rokhaya Fall. baayam moo yor sëriñ Abdou Sakkoor. baayam moo yor sëriñ Abdou Sakkoor ak dégloo. nee na keroog. nee na keroog. Cheikh Ibra daan ne. Cheikh Ibra daan ne. ana yaaram. ana yaaram mbay. mu ne ko andi leen carotte bi. ñu gaare ci bunt bi. ñu gaare ci bunt bi. ñu mën a war war. ñu war a mën war war. ñu mën a dox dox. ñu mën a dox dox. ñu ñu ñu rëppatal. ñu rëppatal. jëm ndokk jëm ndokk. dégg nga Cheikh Fall ne ah kon ndokk doom dégg ngeen ba. ah Cheikh Ibra daan ne ndokk ndokk doom. ndokk fa lañ doon yeneen xeer yi di yóbbu Touba. nee na ndokk jooju moo indi baat boobu wax ngeen dëgg. wax ngeen dëgg. ñu ñëw ñu ñëw. bi ñu ñëwee ba ci eh, barab boobee. bi ñu ñëwee ba ci barab boobee. maam Cheikh na yaaram. maam Cheikh dana yaaram mbay. mu ne ko faal mu ne faal yaaram. mu ne ko jox ma naanu gi. naanu gi mooy mooy mooy mooy gën mooy gën gi. mu ne mu xëcc ñetti yoon. naanu nee naanu googu nag. Sim Sakor Fall danaan ko man ab Sakor de bu leen ma ci toppandoo de ndax seen maam Seex da daan aaye naanu gi muy gënd gi kon Baye Fall na ngeen góorgóorlu Baye Fall du tux de Baye Fall du njaaloo Baye faal du wax lu yoonam nekkul Baye faal du naan sàngara nee na buñ nee Baye Fall nag mooy murid da ngeen dénkaane boobu de nee na murid saadix nag mooy Baye Fall kon nag ñun ñëpp nag ku di murid ak ab Baay Faal Cheikh Ibra Sëñ Sakor daal ne ndax yàlla dafa dogal ku nekk xam na ne gën googee maam Cheikh Ibrahima Fall daan daan yoroon te ñu ko wax naanu gi sëñ Abdou Sakor moo ko doonoon si moom moom lañ daan gis mu di ko def na Cheikh Ibrahima daan def doom ju Cheikh Ibra jur. meenum Cheikh Ibra Sakkoor. meenum Cheikh Ibra Sakkoor dong. sëñ Baara Guèye di moom ko wax. sëñ Baara Guèye di moom ko wax. mu ne maa ko fekkee. nee na maa ko fekkee. ay yoon. ay yoon. mu di ko taal. mu di ko taal. te daw ko taale almet. te mu ko daan taale ci almet fu ñu koy taale ci jant bu yàlla bii. te amul jenn doomam ju koy jëfandikoo. kon nañ ko teg ci suuf. kon nañ ko teg ci suuf bàyyi fa lu tux bokku ci tey. maam Cheikh daal ne. maam Cheikh daal ne. yaaram jox ma ngas gi dafa ji. yaram mbay jox ma ngaska gi daba gi neena mu lamb ñaar yoon ñetti yoon mel sëñ yaram mel ne ko xaw a taayel daan ah fii de eh, sëñ bi daa mel ne dara newu fi Cheikh Ibra ni ko yaaram jox ma jox ma daba gi mu jox ko daba gi Cheikh Ibra dóor ben yoon dóor ñaar ñettel ba ñu dégg xeer yi di yëngu ci bir suuf allahu akbar Cheikh Ibrahima Fall daane ah yéyée ana sëñ Mourou Moussa Mbacke ñëwal nii mu ne ko ndokk fii la sa baay baax ba waxoon ni ko malaayka yi ba ñuy xare badar ba yéefar yi di bëgg a jekku jullit yi suñu borom xamal ma ni sëñ Bamba àndal ak Ibra Fall mii ngeen dem ju waa badar allahu akbar déggal lii nee na sëñ Moussa Ka daf ne Moussa moo labal Firawna ca bahru xalsoom noohin labal bañam ya Seex Bàmba nee na moo leen joxoon mbootam ya la ñu dénkoon xutba ya ak alab daal ya moo ko ni cas ko roogaay dëngañ diwéy te tawutul balaay suru def laa lawatul kenn du moom bët yëpp soxla ñu bàmbaay kaamil mu ne ko fii dey mu ne ko fii dey ba ñuy xare badar ba yéefar yi jekku jullit yi ba yéefar yi jekku jullit yi suñ borom xamal ma suñ borom xamal ma ne ni ma yaag sëñ bamba dem leen ngeen wàllu ji leen ni ma yaag sëñ bamba dem leen ngeen eh, wàllu ji yéefar yi nga xam ne jullit yi jekku na leen ci xasatu badar bi dëgg loolu de dëgg loolu de te loolu te loolu Cheikh Ibra wax na ko ci sëñ Moussa Ka Ibra wax na ko ci sëriñ Moussa Ka bi sëñ Moussa Ka di def taalifam yii bi sëñ Moussa Ka di def taalifam yii Cheikh Ibra Fall dana ah xee xee doom ah, ku tuuti te sew Moussa Moussa Ka tamit nit ku tuuti te sew maa ko xam maa ko xam daanaa ko gis badar daanaa ko ma ko wax nee na Mamadou Mangara ko wax booy sëñ Ibra ne xeer yooyu nga xam moom la jullit yoroon xeer yooyu nga xam ne moom la jullit yoroon di ko xeex ak yéefar yi di ko xeex ak yéefar yi sànnante di ko sànnante ak ñoom di ko sànnante ak ñoom ba leen noppee ba jekku leen ba leen noppee ba jekku leen fii lañ ko juug fii lañ ko juug ci ndox ndok baam ba ne ma sëñ Bamba ne ma su ëllëgee su ëllëgee bu ñu tabax sama jumaa ji na ko bu ñu tabax sama jumaa ji ko jëli bu ñuy tabax sama jumaa ji na nga ko wane bu ñuy tabax sama jumaa ji na nga wane xeer yi moo tax xoolal jumaay Touba moo tax xoolal jumaay Touba ba addunay tukki du fi jóge ba àddunay tukki du fi jóge kenn du ko sës kenn du ko sës kenn du ko rakkise kenn du ko rakkise noonu lay mel ba faaw noonu lay mel ba faaw sëñ Fallou ne woon fii la sëñ Fallou ne woon fii la baba legi foofa la booba léegi foofa la tey moo ko tuddee Lamp Fall moo ko tuddee Lamp Fall moo tax Fall baal ma dog bi dugumal dama ne Cheikh Ibra sëñ Fallou moo sédd Cheikh Ibra moo séddoo Cheikh Ibra dafa am leer tudde Cheikh Ibrahima Fall ñu jox ko so ñu jox ko soxna maam say Fall moom sëñ Moussa saabu Fall moom Cheikh Ibra moo am ci sëriñ Abul Baraka mii di Cheikh Ibra di sëñ Fallu ñu jox ko soxna Adama Fall mu sëriñ Assane borom naa ko sara moom ci sëñ Modou Xabaan muy Cheikh Ibra amin Fall yàlla nañ ko dund téeméer yu tàmbaleen amin te bari xéewal nag amin yori milliard ndax yoon wi da yoonu wér di yoonu yor du yoonu gudd fan ndax gudd fan kët sëñ Thierno Diouf Lambaye dafa wax ne nee na fetalu ñaari ngémmiñ la danga ci da nga ciy tooñ fayu ci sëñ Fall tam noonu ko daan waxee sëñ Fall moom mooy suñu lépp ndax dama leen wax ne yoon yi fu mu àgg Cheikh Modou Fall la ko fàggale kon ñepp war nañu delloo ñukal Cheikh yooyu Serigne Fallou ndax maam Cheikh Ibrahim Fall day ab ligéyam. Serigne Fallou moo ko cacheté moo ci def tampon ndax Serigne Fallou mooy Serigne Touba lu mu wax Yalla yàlla def ko ba nopi. li Cheikh Ibrahim Fall andil muy ñàkk a julli ak ñàkk a woor sëñ Fallou ànd caag moom daan ko defandoo ak moom. bi Musaana ñëw kër Cheikh Ibra ñëw na yoon woo xam ne Daaru Faal Sëñ Abdu Sakkoor bi añ jotee ñuy dënale mooy séddale weeru koor Sëñ Fall daane Abdu Sakkoor ana añ bi mu ne ko ah, Mbàkke yow ko dangaa ne ci koor mu ne ko tey jii nag de moom maag ñëppay bokk añ ndax bu may Tuubaa day koor la àndal waaye bi ma duggee ci suufu Daaru Faal ci lëf day ni ma man fallu ni ma suuf si de képp ku ci taxaw kon wàcc na la allahu akbar sëñ Fallou wax bu jërë ngeen jëf